interpellé ñëpp à commencer suñu mbokk Assane Diouf Sénégal bi ñu namm du Sénégal boo xam ne dañuy saagante Sénégal bu ñu namm du Sénégal joo xam ne euh, euh, nit yi mën nañ nangu ñuy saagante euh, saay su leen neexee donc d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg ak citoyens yi nga xam ne dañuy saaga nu mu leen neexee rawatina ci réseau sociaux yi. donc Assane bu dee yaa ñuy déglu d'accord ñu waaye dañ koy waxaat ci nu ma gën a gaawee Assane Diouf dafa saaga nañ ko daan li nga xam ne moom la yoon wax mais lii nekkatul justice lii justice bu corrompu la maanaam justice boo xam ne mun nga ko manipuler pour agresser doomu aadama pour venger wu ci doomu aadama et donc suñu jeunesse suñu ndaw yi suñu askan rawatina ñi nga xam ne ñu ngi ci réseau sociaux yi ah maam borom Touba kat ak suñu yeneen mag yu baax yi wax dëgg yàlla euh, musuñu ñu wax ñun ñuy saaga Cheikh Anta Diop itam am na lum ci wax nee na dëgg dëgg boo ko woddee ak saaga yaa ngi wàññi dangar ca loolu la maam Cheikh Anta doon wax dëgg dëgg la vérité boo ko woddee ak saaga yaa ngi wàññi dangar ja donc muy Assane Diouf muy keneen ku dul Assane Diouf muy suñu ndaw muy suñu askan nañu bàyyi di saagante ñu nag Sénégal dañoo yomb ci mbedd yi ci suñuy kër ci fu nekk di saagante donc li ñuy laaj mooy Assane Diouf nañ ko àtte mbaa ñu bàkku bu génnaatee itam bu saaga waatee on espère que du am nañ ko nañ ko jàpp nañ ko àtte wala ñu bàkku mais ku jalgati yoon dañ koy sanctionné ci li yoon wax mais fii enquête waru fi instruction waru fi acharnement bi dafa doy waaw te dama koy fàttali gis nañ fi ñeneen ñu ñu saaga ñeneen ñi nga xam ne ay saagakat international lañu te ñooñu mujjul fenn deux poids deux mesures bi tamit du dëgg du yoon kumba am ndey ak kumba amul ndey bi tamit dafa doy dafa doy wala dañuy naan un peuple un but une foi wala dañuy constater que du benn dëgg deux peuples deux buts deux fois la bu dee Assane Diouf ñu daan ko ba daan ko loo xam ne du dëgg du yoon bu dee xaw ma soxna si ba xaw ma ak ñoom seen ñu utal ko billet d'avion mu génn en fait mu génn en fait mu génn en fait Sénégal deux poids deux mesures boobu du dëgg du yoon waaw pas que président Macky Sall. di doxalee Sénégal ba la devise du Sénégal nekk une devise mensongère maanaam faut pas que devise du Sénégal nekk une devise mensongère deux peuples deux buts deux fois kenn kuy saaga ñu nabbi nabbee ko raay ko utal ko billet d'avion mu dem vacances beneen citoyen bu saaga ñu tëj ko ba def ko loo xam ne du dëgg du yoon maanaam jël dossier bi un dossier de flagrant délit ñu def ko un dossier xawma en instruction ñaareel bi mooy suñu mbokk Sénégal la ñuy waxal rawatina ndaw yi suñu mbokk Assane juuf la ñuy waxal te ku xam Assane Diouf xam a ah, ni mu nekkee jullit ci ni mu nekkee jullit fonk yàlla ak yonent yàlla Mohamed jàmm ak mujj ci moom ku fonk tamit Serigne Touba képp ku xam Assane juuf xam ni mu fonkee Serigne Touba ndawu Sénégal yi la ñuy waxal askanu Sénégal yépp la ñuy waxal rawatina ndawu Sénégal waaye tamit suñu mbokk Assane Diouf la ñuy waxal parce que wóor nañu ne mu ngi ñuy gis mu ngi ñuy seetaan jamono ci Serigne Touba nag dafa am lu mu wax sëriñ Touba dafa ne donne à ta langue une coutume de parole décente tu en gagneras une langue prend l'habitude qu'on lui donne dans toute chose elle se servira de l'habitude que tu lui as donnée dans le bien comme dans le mal. Donc regarde par quelle manière tu t'améliores.